wallaahi taala wa barakaatu yéen mboolem mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu ci turu rabitatul madaris al quraaniyati fi Sénégal muy ligue des écoles coraniques du Sénégal ci Serigne Bachirou Mbacke moom Cheikh Amadou Fadil mi nga xam ne mooy président d'honneur bi ak ci kilifteefu Serigne Bachirou Mbacke moom Serigne Habibou mi nga xam ne mooy président actif bi ci turu Serigne Abdoul Aziz bu Fass Touré mi nga xam ne vice président mbooloo mi la ki turu sëriñ Maxtaar Naarloo moom it di vice président sëriñ Maxtaar Naarloo bu kokki di vice président bu mbooloo mi ci turu sëriñ Bachirou Dieng bu njaareem di vice président moom bu mbooloo mi ci turu euh, al aminul am muy secrétaire général bi di sëriñ Xaadim Ndiaye ak sëriñ Sam Mbakke mi nga xam ne moo topp ci moom ci turu mboolem furon yi muy section yi nekk ci réew mi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar. am kàddu yu ñu fas yéene jotal ci seen tur muy kàddu cant ci mbir mi nga xam ne moo xewoon mu yàlla dogaloon sunu mbokk sëriñ Xaadim Gueye ñu téye woon ko ni ngeen ko xamee ba yàlla dogal suñu borom subhaanahu wa taala tey ñu bàyyi ko donte suur si mi ngi ci waaye cant gi ñi ngi ci jiital ginnaaw bu suñu borom subhaanahu mi nga xam ne mooy dogal lépp ki nga xam ne mooy sëriñ Muntaqa Mbàkke moom sëriñ Bachiru di jëwriñu kër Cheikhul Xadim radiyallahu anhu sëriñ Touba mi nga xam ne jëwriñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la woon amul woon frontière ci diine jëpp ki fi nekkal taxaw taxawaayam bu mat sëkk bi nga xam ne taxaw na ko ci mbir mi ñi ngi koy sant cant goo xam ne am na fu muy tàmbalee waaye amul fu muy yem cant gu lëngoo ak ñaan di ñaan borom bi subhaanahu wa moom mi nga xam ne ala kulli shay'in qadir lu ko neex mu def yàlla na wane kiimaan ci dundu sëriñ Muntaqa dundal ko dundin woo xam ne yàgg fi lool te wér lool ba mottali ay mébétam ndax dana jariñ diine jëpp dana jariñ diine jëpp dana jëriñ diine jëpp loolu kon mboolem sëriñ daara yi nekk seen xol ñaan goo xam ne ñaan gu sori la ñaan goo xam ne ñaan gu ñu am yaakaar la ñaan goo xam ne gu ñu am yéene la seen diggante ak moom di ko ñaanal nag ci ci kilifa diine yëpp ci Sénégal mbokk yi cant googu ku ne xam na ne li ko waral mooy sëriñ Mountakha mbir mi bi nga xamee ne am na yàlla dogal ci turu rabita bi ñu ànd ak sëriñ xam sëriñ Abdou Samad Mbakke moom sëriñ Chouaïbou mi nga xam ne jàmbaar la ci mbir mii yàgg ànd ak raabita bi ba mu tamee daa tàmbalee ba nëgëni ci lépp lu daara yëngu mu ànd ko ak ñun ñu àndoon moom doon ci kanam sëriñ Mountakha leeral ko liñ ko wax mbir mi ni mu xewee bu noppi mu ne da ngeen ma cee fekk da ngeen xam ne mbir mi sama mbir la kaddu googu di kaddu goo xam ne doy nañu sëkk mu wax ko jëfe ko jëfin woo xam ne jéggi na dayoo ci taxawaay yu mat sëkk taxawaay yu rafet yu am solo yoo xam ne dafa wax ne da cee wuutu kilifa diine yëpp da cee wuutu julli ñëpp la koy defal li muy def bi nga xamee ne mbir mi tol na fi mu toll yëngu-yëngu yi njëkk am ci atte bu njëkk ba mu yabalaat jëwriñam sëriñ Mamour Mbackeem Cheikh Mamadou Fadel mi nga xam ne moom la jël daara yi teg ko ci loxoom te muy loo xam ne kilifa ya ko jiitu woon moom lañ ko defoon mu ñëw feddali ko sëriñ Mamour di borom taxawaay bu rafet di borom yéene ju rafet di borom ab coono ci diggante daara yi jóge fii digg ba ceeg moom dem Louga fekk sëriñ Mahmadan sëriñ Motoda wax ko kili kàddu yi nga xam ne moom la ko kilifa gi yónni muy sëriñ Mountakha yàlla dogal ñu def déclaration foofu ñoom ci wax ndigalul sëñ bi muy na ñëpp dal na ñëpp dal na ñëpp dal loolu sëñ bi woote. mbir mi mbirama ci dana ci jël matuwaay yi ci mat dem laaj yëpp dana ci taxaw taxawaay ba yëpp na ñëpp xam ne mbiram mi mbir la mbirama ci ñor na ko loolu kon ndawam yooyu jottali ko. sëriñ Mahmoudan def kaddu sëriñ Mamoor Mbàkke def kaddu ñu jot loola kon loolu yàlla dogal lam ne woon képp koo xam ne boo naree dem ca fit nara juddoo ci yow booy boo nga toog toog sa daara ñaan kon sëriñ Muntaxa li ñu waxoon la ñuy waxaat mooy ñoo ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm moo waral bi nga xamee loolu am na nag rabita bi defoon déclaration ci section Touba wuutu ci section yëpp man sa ko wax ndax kaddu gépp benn la mooy wax ne ndigal loolu sëñ Muntaxa eh, joxe ku am kilifa boo demee jàmbat ko sa mbir mu jëlal ko boppam jël ci taxawaay yim ci jël jëm ci matuwaay yim ci jël na la kilifa ga doy kilifa ga na la doy ba tax na kon li sëriñ bi sàkku muy ku munta dem daal ca doo fa def fitna nga xam ne boo fa demee fitna juddoo ci yow wala am ci tiit toogal sa daara ñu gisoon na kon ñun ñëpp nañ toog sunu daara ndax moytu lépp lu mën a juddoo fitna yàlla dogal kon loolu am ci turu rabita bi kon ñi ngi sant sëriñ daara yëpp yi Sénégal yi ci rabita bi si bokkut yëpp yi dégg ndigalu sëñ bi daal di koy jëfe sëriñ Abdoulaye Ciss Touré bu Faas kilifa gu mat kilifa moom ba mu déggee wax ji daal di xam ne ne ndig daal di def déclaration ne ndigal loolu sëriñ Mountakha joxe ñun ñëpp nañ ci tënku mooy sunu kilifa ñun ñëpp nañ ci tënku defe ni mu ko waxee mooy bu ñu xëyee ni ñëpp dem ci daara ya la ji ca fekk ne lu jiit loolu waxoon na ne ku mën a dem ci àtt bi dem ci àtt ba waaye bi mu déggee ndigal suñu taxal loolu laal di wax moom it ko sant beral cant wax dëgg bi loolu amee nag sëriñ daara yi tax ñu leen di sant mooy ñaar rek ñoo am ñi ñi nga xam ne dégg nañ wax ji noonu biñ ko déggee rek daal di wax déclaré toog ñëpp toog seen daara sëñ bi ñu ngi leen sant baax a baax ñu rabita bi ak fu daara mën a nekk fu sëñ daara mën a nekk ci jëfe gi loolu waaye ñaareel moom ñi nga xam ne jotuñ ko woon a dégg a ñaar bi ñi xam ne ñoom xam nañ ne buñ demee am nañ am nañ sago ñu dem ndax ñoom it jëfe bañ àggee nag ñu jëfe ndigalul sëñ bi ñoom jëfin bu rafet mooy fu leen police wala gendarme ab gendarme ne leen bu leen taxaw fii ñu bañ faa taxaw bu leen arrière leen ñu arrière bu leen toog fii ñu daal di bañ a toog bu leen dagaloo ñu daal di bañ a dagaloo lépp loo xam ne luy mën a yëngu jur ab yëngu wala luy jur fitna siñ sëñ taxaa doon bañ ñoom ñu wattandiku ko ba mu jeex takk ñoomit it rabita bi mi ngi leen di sant ci taxawaay boobu mi ngi leen ci gërëm di gërëm waa réew mépp di gërëm waa réew mépp nag ñii sëñ daara ñu du sëñ daara beral ci waa réew mépp ci yem ndax yëg-yëg yi yenn la woon yëg-yëg yi xol yi yenn la woon yëngu-yëngu yenn la woon kaddu yi yenn la woon mooy ñi daara ñor ñi daara saf ñi alxur ñi bëgg alxuraan ñëpp ñoom day mbir mi metti woon na leen naqarle woon na leen ba mel ne ñoom lañ def loolu ñoom lañ teg foofa ñoom lañ tëj foofa di góor ñi di jigéen ñi di mag ñi di ndaw ñi ñëpp seen yitte jenn la woon kon ci turu rabita bi ñu ngi jotal kaddu yu cant yooyu kaddu yu ngërëm yooyu di jeexalaat ci liñ tàmbali woon mooy ñaanal sëriñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi lool te weer ñaanal kilifa yëpp ñu yàgg fi lool te wér suñu kilifa yi nga xam ne ñoo jiite rabita bi yàlla sàmm leen aar leen yàlla sàmm daara aar daara ñoŋal daara e, may daara taw tawféex li mu bëgg mu am jumtukaay yi mu ko mën a liggéeyee ba bépp e, luy nuru ñàkk moyen e, mu jóg ci daara ba ñu xam ne sëriñ daara yi bu ñu amee ay jumtukaay day liggéey rek leen ñor ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp lépp lépp lu ci lépp lu ci mat ci kilifa yi ma yónni la waaye lu ci matati ci man mii nga xam ne man maa ko doon wax maa ci juum ci maa ngi ko jégalu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.